kon duñ def leen loolu sant la Cheikh Moussa di ñaan nag euh, euh, sa euh, site bi di Mbacke Kadior TV suñ borom gën koo jëmee kanam egg foo xam dana gën a kawe sa njoot barke Serigne Touba ñu ngi koy topp baax nag di ko suivre saa su nekk waxtaan yu am solo yi ñu ciy def yëpp ñu ngi koy topp ñu ngi ci ñaanal baax nga gën ci amee lu gën lu gën a kawe sa njoot di sant bu baax nag di la la bëggee bu béer di siyaar bu baax nag ñi nga xam ne ñooy taxaw site bu am solo bii nga xam liñ ko tuddee di lépp ndax fa la lépp bàyyi ko fa la lépp déparé muy Mbàkke Kajoor kon na yi fi déparé ba law ba àgg fépp ba daj fépp eh, Cheikh mosaa ñu ngi lay ñaanal tamit sa site bi moom it yàlla na law ba daj fépp ba fépp fu yoonu murit àgg rek yàlla na fa sa site bi àgg ak sa liggéey bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy def bi moom mooy moom moom mooy Mbacke Kadior euh, TV waaye yàlla ngeen yokk yàlla ngeen yokk ba mel ni yokk jumaa ji rek. di jeexale nag ci ci ci ci ci ci Mbacke Kadior euh, TV saa bu lu mel nii amee danañu gis sax ngeen jël ay image dugal ngir wan nit ñi ngir xamal leen ngir jàngal leen waxtu wu ne tey ni ngeen ko defee sax dafa baax ndax li tax mu baax mooy image bu guddee ki koy seetaan mën naa tayal waaye da nga def loo xam ne ki koy seetaan dana dugg ci boppam. Eh, di sant suñu rakk eh, di Mbacke Kadior TV Serigne Moussa Dieng wax dëgg yàlla ku ne xam na ne eh, lu mel ni sa suñu koy def da ciy taxaw teewlu ko te kenn ku nekk xam na ne site bii di Mbacke Kadior TV képp ku koy yër gisoo mu di ci def daray caaxaan walla lu leerul wala lu dul noonu nga xam ne kenn ku nekk. daanaka man nga koo jël def ko muy sab rajo waaye man nga koo jël def ko muy sab télé ndax xale la bu am jom bu nangoo liggéey te lépp lu muy def dana ci sédd digganteem ak yàlla